mais mu am ñaari xale yoo xam xamante dañ ci bëre mu nekk ci diggante njool jamono ak ki nga xamante ni mooy sàkkal tey nag ñu dajale leen fii bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb ji bëgg waxtaan ñoom ci ni ñu waajee bés bi bëgg waxtaan ak ñoom ci bés bi tey lan la laaj ci kan laay njëkkee sax ci yéen ñaar sàkkal nuyu naa la. ah maa ngi fay. dinaa ma sant yàlla jur si yéen bi sant sama ñaari waajur sant waa jàmm gën di ma jógee di sant sama doom ndey lëz di sant ñëpp di toog ci plateau bi ñëpp. doo nuyu doo doo nuyu njool kii nuyoo. seeq leen nuyoo lu tax. bis ba lañ seeq ma du ko daan. mais xanaa di ko nuyu tey bis baa ngeen jëflante. moom xam na tam la ma ko dencal. yéen lan mooy seen problème. Hmm? arbitre ma duma ko daan ko rek affaire bi loolu la rek. njool nuyu naa la. waaw maa lay fay. ginnaaw bi ñu sant yàlla juri cëyante bi sant suñu ñaar waajur. ajal mi ko tuuti. di wax un jour la bisimilah indi wala yàlla jërëjëf Serigne Touba. kii nii dafa baax rek di wax. mais nag dalaa ñeme. ñeme na musibaam man ay ndaanaan laa bëreel. comme kan xam di nuyu ki ne bas. Hmm. xam di nuyu sama waa dëkk ceeb. waa tu xam nga Paa Kër bàyyi ma kenn val waa Géej waay bàyyi ma kenn kii nii dafa baax rek ñi ma bëreel ñoo ko ëpp safara ñoo ko gën a danger. ay soob rek. boo gisee man ma xaw a retardé ci am problème adversaire bëri naa sept combat yaa ngi may wax sax am problème adversaire moo tax nga jël ko. ma jël ko kii man ak moom xaar yow saa yow. te bu subaa naa ne danaa ko mooy yoonu làmb. billaay maa la ëpp doole mu tax rajo yi rek maa la ëpp doole dama lay duma daan la tee nga tey rek waaw yàlla na yàlla may tala fekk ba dimanche ak jàmm daan la déggee junior waaw yow saa yi ñooñu yow ngay wax ah, léegi moom nag moom nag daa mel ni bëggul woon bëri ak yow ndax maa ngi dégg maa ngi dégg léegi nga may wax naan ma ay Abu sa doon laaj mais comme que jot ci Abu Ndiaka. mais garab ci kaw lay fekkantee. làmb léegi nekkatul ay damaa daan kii non non garab ci kaw lay fekkante affaire bi du foofu de. kii Mm-hmm. le treize. li neexal lamb ji man maa koy def. da ngay rek da wax lu la neex rek ba laamin bi nee na nee na pare woo entraîné woo. non pare wul xam woo yow. yow doole. bi laay pare woo. bu bis baa lu wow koŋŋ ngay gis. Mm, yow fu mu nekkul ci yéex. bàyyi sa léeb yi baax na yaa ngi nax sa bopp de bilaay yaa ngi nax sa maa yow ñoo bokk ci bopp maa la gën a nekk avenir ci làmb fop te bu ñu tegoon maa yow maay a xaar yow saa yow yow yaxu daaw nga yow da ngay xaar lu bari bilaay walaay tale avenir la maa la gën a nekk avenir fop ajal micro bi tuuti dama lay jàpp daan la duñ yegg foofu minute duñ ko bëre maa ak yow taxul dëgg sa bopp rek bi ñu maa lay dégg nga naan ko minute duñu bëre du ma bëre ak yow minute non damaa xam ne day ñëw damaa xam ne day ñëw moom mi day ñëw moo tax ah bul xam lu may non da ngay ñëw ama yaa ama bu malika bi paar ma gis nga ñëw te ñëw rek ñu daje ci man lay def da ñëw ñu daje rek damay a guddeel amateur yi léegi làmb léegi damay bañ xool ko benn moto ci ay ay ay ne du yàggoon për dëpp gëmal kon du yàgg ndax man suma sama tànk kanam du bu fekk bu ginnaaw yow da wax rek yow da wax koo xamante ni amul doole yow maa la ko doole fop ba Seydina maa la ko doole waaw li may dama ko gëm dama xam nii laa lay waxee ba làmb ma jàpp la daan ñu laaxee ba laamañ ma jàppale daan amul. non amoo doole. billaay amoo doole. kuy kontaan ay ñoom Liss Ndiago Sidi Diamb xam nga yow kii yow ay la dàq bëre fop ci laam. parce que Seydina ñu ma fii. te bis ba naa la bëree loo ba sa laam. billaay da ngay xaar yow di a suul. a suul. ndax sa defa sa sa defa man dama xam. kii amul njëriñ. kii bu dem bu tuusee sax jeexal. moom billaay moom est-ce que est nga ko seetaan. déggoo ma kii xam lan moo boole. déedéet bañ koo jox sama avance mu génn mu delloo. mais xam nga ko. <laughs> xamuma ne looloo ko nar a nax ba làmb ja nag billaay ko nar a xamu sa lu may bëree te xam naa pied bi muy teg yëpp xam naa li ngay bëree yow la la mën góose bi ngay teg ku ko teg la nit mm. seewu loo xam ci moom dara te moom nee jàng na la ba jeexal la xamu ci man dara ki dama ko xam ba jeexal ko dama ko liir ba doyal. ci man dama koo xam. mun naa bind ci moom livre man déggoo ñu ne mag du daax day koj. mooy yow. waaw loolu de am man damay koj. làmb ji léegi ay kojante amu fi saay ak lii am. làmb léegi xale koy def ay kojante amu fi. barki lool léegi làmb xale koy def. da ngay entraîné ba am doole ñëw ne xale bu ndaw jàpp daan dem ñibbi. am naa barki yàlla du ñu bëri minute. am naa billaay walaay taxaw sa bopp rek. yaa bañ a wax baax na. billaay sa tànk dara neewu ci. billaay walaay kii dama ko féré ci ginnaaw stade bi la jëm kii jour yàlla xam na lool nga génn ci moom baax na kii jëmm ji nii. baax na jour combat da ngay sàkkal mi sàkkal mi dafa dafa dafa ci biir wax. dama ko ëpp doole nga moo nekk xale am doole. barki Seydina Muhammad dara du la téye entraînement bu wóor mooy dëgg. lu leer laa la wax te bu bis baa di xam bu ñu ko billaay walaate di nga daw génn. loolu ba mu baax na non bu ñu jàppante day gën a ñaaw ci yow yow bu ñu jàppante du ma taxaw sax di xeex ak yow yow du taxaw di xeex ak ni lay demee ci jàmmaarloo defe naa ne sàkkal yaa ngi ci 4 combats de maa ngi ci 4 combats 2 victoires yow yaa ngi ci 6 combats 7 combats 5 victoires de défaite bi mooy troisième victoire bi incha bi mooy troisième victoire bi incha allah. mooy trois mooy troisième victoire. waaw victoire daan waaw non ak troisième loolu dara làmb saa yi loolu dara. ak bii nii victoire ëmma seen dix défaite kii maa koy génne te léegi maa koy génne làmb léegi dix défaite làmb. maa koy génne làmb loolu maa koy découragé maa la ne def nañ ko demul. xam nga yàndaatu un peu. léegi li problème bi bi ma bëree ba pare. koo jox sama avance presque saison bi mën naa dem ba lang muy soog a am combat. man moo waral samay samay combat yi. moo xam lan la gars yi di daw si yow yow gars yi lan lay daw dañ lay ray rek. yow de yow yaay wane li tax la la yow yaa koy feeñal. billaa la dóor bi dóor yi métti jàpp la daan. billaa walaay taala dama gis dama gis ñeme gi ko ñeme da ko xam ñu proposé nga jël ko wala yow yaa ko bëgg. dama xam ne dama ko fekk CNG gars yi aas ni nii xoolee mu mu ñëw ba ci moom ni ko kii laa soxla. yow yaa ko parce que xam naa waaw man maa ko tànnal sama bopp man maa ko tànnal envoyé sama foto non photo man ma duma man du ma ci jël mbër. photo ah, moom saa yi du ma ci jël mbër dama dama accepté. man photo du ma jël mbër. photo du ma si jël mbër dafa gis ma waaw na sama liggéey waaw moo tax ma xam ne jàpp daan ma xam ne kii nii mooy loolu benn voyage lay xale koy def moo tax man xale la naa la woon ne la maa la gën mais boobu ak léegi combat bi taxaw mhm. naka nga ko préparé non maa ngi koy préparé bu baax a baax wax dëgg yàlla ak samay mbokk ñu koy préparé bu baax a baax kii moom du du kaa sax kii moom du problème. préparé moom météo entraînement yi naka ngay naka naka naka nga koy waajee. non entraînement yi moom chaque matinalu. Mhm. wala da nga yeew dem saal wala na nooy entraîné. non entraînement yi si. Hmm. ñaari séance la ñuy def chaque jour ñu ngi si chaque jour. waaw daan def daal parce xaaj ñëpp ñoom fi mu ñoo ngi ci hmm? écrit moom xaaj bi ñëpp ñoo ngi ci contrat. non non waaw ñëpp écrit ba ñëpp am combat xaaj bi ñëpp. Liss Ndiago Sidi Diamaguène gaa yëpp ay doomu Diamaguène gaa yëpp dañu am combat

yaa nañ dalante rek doon xam ne dëgg la doon nag sàkkal ni muy waxee nii yaa nañ dalante rek xam ne man maa xeeb wala koy nax yaa nañ dalante ak jàmm rek barki alxuraan ñu ngi koy nax hmm. kii nelawatul ba yandoor fekk micro da ngay wax la neex rek nii lu la neex da ngay wax la neex mais barki si ci mystique la ko teg ah, ci mystique la jafanu moom <laughs> xam na ne amul doole mais ci mystique moom moo fi indi ndaw moom fi indi dóom bi moo fi tuur moo bi yëpp xaw ma la xaw lu xaw ma lu mu indi xaw ma sunguf sunguf caaro yi cent franc yi lay jëndi xaw a nii da ngaa baax rek dëgg la sa bopp rek. barke Alxuraan kay laa mu xale ko def bu wóor. du mit laa wax. lan ngeen wax ki nga xamante ni mooy Jax. Hmm. ci bés bu mag nag ngeen di bëri ci diggante euh, Serigne Ndiaye ak Cobra lan ngeen di wax Jax. waaw Jax moom. dañ koy defe naa ne bu gaaw mu ngi leen xaar foofu hmm. moom pour wax ci moom dinaa ci sawar ndax xam nga borom baax la te jàpp na ci. Hmm. ndax amoon nañ problème combat mu fexe ba jox ñu combat. kon tamit xam nga li ñu moom mooy ñu mobiliser ko duyal ko stade ba mu fees dell te bu soobee yàlla maa ngi ci loolu. xam nga bu loolu weesoo maa ngi nuyu nag waa ceeb xam nga fi ma dëkk. Mm-hmm. maa leen di bëggee di leen woo ñu génn càpp ci waa Morolan waa Touba xam nga bàyyi ma kenn ku ma bu rek damay juum waa Pàkkaro ñoom ñëpp maa leen di woo te bëgg na xam nga billets ngeen gaaw jënd ko mu jeex waa li ngeen jënd rek dayul damaa bëgg ngeen jënd lépp ñu duy stade bi jour combat ma defaral waa ji. Mm-hmm. nga ñëw daanu dem ñibbi. ci kàttanu yàlla. looy wax ñi nga xamante ni ñoo lay jàppale. ak supporters yi waaw di di leen woowaat di leen ñaaxaat rek la treize. Mhm. ñoom sax comprendre nañu daanaka dama leen di soññaat rek di woowaa jàmm gën gi yëpp te jaara sam-sam di sant sama waajee toog lëz sant Ibrahima Tarkinda sama waaje ak gaa yëpp maa ngi ziar yow billaay am nga problème su ma la jàppee da nga xam ni doo dara rek awa awa Abdoul Ba awa Abdoul Ba maa ngi sant bu baax daf maa jëndal bolok mhm. may ma santi set waaw maa ngi koy sant bu baax sama yaay boobu la Baye Baara maa ngi koy bëggee su déggee turam dina xam ku may wax waaw di bëggee ñi ku ci jàpp rek xam rek boo limee da ngay juum ndax njool ñi koy jàppale dafa bëri mm-hmm. boo limee rek da ngay juum mais en tout cas le treize <laughs> le treize dina neex dina yëngu barki di woo nag Lamine du Balla Gaye maa ngi koy woo bu baax a baax mu jàpp si combat bi boobu moom sama waay la yaa ñaan ndimbal ak kan ñëwal da ngay liir. nga ni lu may liir. ay ah, kii mu ci bëggoon lan laay liir man ni may jàppale laay wo yow amul dara yow lu may raf si yow. amul dara loo xam dama koy raf si yow yow. ni may jàppale laay woo. ñi may jàppale laay wo yow nga fàtte jour CNG bi nga fa nekkee am na sama gars yi fa nekkoon. ne damaa yor yor bàyyi la ci biir rek. nga foofu lu fay wax fay ne di wax. ñu ngi julli nga fay ne di wax xam nga nangal sa neex rek dafa ma bàyyi xel. te bés ma bàyyi xel dama ko fay woon par force. mbaa da ñëw kooku. loolu bi la fanaan. saay billaay wallaay taalaay yow li nga yaakaar <laughs> ah baax na rek danañ yàlla may tala fekkee baax na te man làmb xale def saay làmb xale moo koy def eh, làmb xale moo koy def làmb teguma ko ci ngeem xale moo koy def waaw sant Kande bu baax nag làmb xale koy def xale moo koy def mag nga kay yow saay yow da nga yàgg ci làmb bi daane daanee xale moom xanaa day yow da maa mën a daan yow da maa mën a daan yow non yow mënoo ma daan nag maa am loolu sax làmb loolu yow sa xel mi da ngay wax da ngay nax sa bopp foo teg loolu yow da maa mën a daan foo may jaar mais nag mais nag gis nga ñaari mbër bés bu ñu demee ba di naa sama moom kookal waaye kii de maa <laughs> hmm. xam ne mu doole xam nit ba amee doole nga xam ne kii dafa am doole moom foofu ko teg ci musique musique barki sëy dunaa ma xam ne nelawut ba <laughs> yandoor Hmm. nit bu du fa nekk. <laughs> mais est-ce que nekkul loolu nga ko woon tamit. Hmm. wonu ma ko loolu barke alxuraan doole ji laa liggéey ci combat. doole ji wóor yi da liggéey contact ak ñoom daal boobu jiwul moteur. barke alxuraan lu kërim contact nii bay jooyit mais dañ lay yëkkati ne la aja bismillah hmm. kii nii. Eh, ilaa yaa ngi nax sa bopp ci man lay ma neexee mu gaaw su ma neexee mu yéex. mu yéex su ma neexee ma koos ko. saa yow looy mel ni di sant Mbaye Ndiaye bu baax nag. waaw laa mi ñu génnoon du bëgg am loolu nga ma ko daanee jël yomb yow sax dama arbitre <laughs> li ngay war yàlla xam ne gëmoo ko. <laughs> billaay ko da ngay wax nii rek. Eh. mooy saa yi ñu sa tànk yi liggéey ko. lii barki yàlla ki nga xam ne bu ngelaw li amee doole sax mu daanu. ci laay ci laay ci laay bi non da ngaa liggéeyoo da ngaa da nga cee liggéeyoo moo tax. lambu xale moo koy def comme li ma la wax waaw yàlla na yàlla may tara fekkee ba la tërees <laughs> gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo ni lay demee ci jàmmaarloo woo ñaari mbër yi ñu xas-xasloo waxtaan wax lañ nar ci bés ba wala wax naka la ñuy waajee bëgg a waxtaan ak ñoom ma xool la de <laughs> mais dama am benn mafia géej waaye tàq-tàq tàkk tàkk ah, waa tàkk tàkk maa ngi bu baax te bu ñëwee esaat. di hmm. xam ne waa tàkk tàkk ñëw nañu. Hmm. kenn du ñëw dara du tàkk saa dara du tàkk. combat bi déggoo ma ma ci leen damay mobiliser ba mu neex. Hmm. barki Seydina ma. dara du tàkk saa yi may wax loo sax te bëgguma wax. mais nag njool faaw nga wax. mais bëgguma wax ndax kii dama doon oh. moroomam ci làmb dama ko mën foofu. saa dara du ñëw du ñëw. dama ko mën foofu te gëmul loolu dara ñëw ay tàq-tàq dara du ñëw ay ndimbal lay woo nii di. man ñi ma jàppale laay woo man. ñi may jàppale man laay woo may jàppale man laay woo mais pour yow ni yow doo kaa barki naa ma xam yow sa góob sax saa yow. non yow du ma tax ak yow. billaay du ma tax ak yow xam ne nelawatoo ba yàndoo. nelaw eh, da ngay <laughs> da ngay lépp billaay da ngay lépp saa yaayee di ko xool xool ko bu baax billaay wallaay taala su ma la jàppee ba bàyyi la. barki lu ñuy laaj Balla. man duma ma du ma tardel supporter. Mhm. du ma amateur duñ ma mere. <laughs> ndax mu ñëwee damay fecc mu neex mu bëri mu neex bu xeexee ma duma ko. yaa Ama Baldé bëri yaa ak saa ku kii bàquwa mu neex ñu jàpp la daan la. waaw noonu loolu laa la xam nga ko dana jàpp da laa biit lam xale koy dafa am doole ñëw diriger jàpp la daan la man noonu laay def. waaw waxuma loolu yaa ngi ni bëri nga quatre combats. waaw ba naa waaw loolu la yàlla dogal. waaw loolu la yàlla dogal. loolu la yàlla ah, waaw incha allah sama troisième victoire mooy nekk nii. billaay wala dama lay daan. waaw ah. baax na yàlla baax na yàlla na yàlla may tala fekke rek <laughs> saa yow tey ngaa dem liggéey li des ci combat xam naa ne mënoo ci entraîné daw rek nga ciy def liggéey koofat bi kase loolu nga ci mën a def instant yi nii billaay walaay taa nax sa bopp billaay yaa ngi nax sa bopp waaw baax na baax na toppatoo jëkka taabu di wër dëkk bi rek ñi lay demee ci jàmmaaloo kàddu yu mujj yi lan la nga woote tàggatoo ñu ñaanalante le treize soyeetul soyeetul waaw di waat Kanté rek mhm. di woo Kanté bu Italie di ko woo di ko gis naa jàppale bi waaw doo waa sama doom nday jéem a ànd nga xam ne ay seex lañ di ba ñu ndaw ba léegi ñooy ànd di woo waa jaamu gën gi yëpp nag di wax ñu waajalaat bu baax le treize incha allahu rabi ci kàttan yaa ñu jàpp gan gi duma ko duma yi metti jàpp ko daan du sax yàgg mobilisation gars yi moom pare nañ moom gars yi moom pare gars yi jënd nañ ticket yi gars yi pare nañ instant lamb ji da la ñuy xaar su ma sañoon mu doon sax suba daan ko ba dem xooli waat leneen yow boo sañoon fi mu toll nii jag si pousaat affaire hmm? waaw waa jaamu gën woo naa leen lu ko defee télé maam jaara waaw caare gi yëpp maa ngi woo waaw ñu jàpp si bu baax. kaddu yu yow kaddu yu waaw maa ngi woo samay mbokk. Mhm. di woo samay doom baay samay ama sama mag sama papa sama yaay sama lépp muy sama taaw yaay. Ibrahima mhm. maa ngi koy woo di woo aada aada moom mënu maa wax ci moom ndax lépp njool moom la. Mhm. tey bu njool amee si ba taxaw nii signature moom la kon man moo tax mënu ma wax ci moom di bëggee Pape Diouf. xam nga moom it dañuy jàpp bu baax ñoom Jibi Ndiaye Ibra Fall su ma limee damay juum di bëggee ñëpp di ñaan école Rebeuss ñu fa am combat ñëpp yàlla may leen ndam. caat nag am na combat bu mag. am na combat mais suñu da koy defal ndam man maa ngi baal bi. Hmm. yaa ngi ubbi maa baal bi maa ngi leeral lépp mu neex. Eh, yaa looy leeral. yaa ku ma rek. yaa looy leeral da nga naan ma ñëw daanu kay ngay wax. amoo leen looy ree da nga ma ñëw daanu. mooy yow lay leeral bambara ah, lan ngay leeral lan lan ngay leeral lan lan ngay leeral mun naa ma lii yow nga ñëw daanu nga ama leeral looy leeral yow <laughs> da neex rek yaay di ree yaay di yow dama lay bàyyi wax ji xam naa waaw baal ba bis ba billaay ni may waxee dama koy wax jëfee ko man maa koy yor loolu la yàlla na yàlla may fekke maay toog yàlla na yàlla may tara fekke maay bëre maay xeex maay daal <laughs> gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo di leen jox dig daje di leen wax ne beneen émission beneen jàmmaarloo ak yeneen mbër. sama gars yi kontaan naa ci yéen bu baax a baax. jaajëf saaka laa ca <laughs> njool sama gars yi ba beneen jaa ngeen jëf.